Senghane Senghor ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Memba. yow yaay coordonnateur observatoire bu rado fii ci diwaanu Ndakaaru li ñu war a waxtaanee Senghane Senghor bokk na ci kàddu yi nga xam ni président de la république bi ñu fal yees Bassirou Diomaye Diakhar fay fësal na ko bañ doon waaj li nga xam ni itam moo jëm ci fête de l'indépendance bi nga xam ni itam amal nañ ko. alors wax na ab discours nga jàpp ni discours bu am solo la. waaw d' abord dañuy commencer féliciter président de la république basiru Diomaye Diakhar Faye ci wóolu bi ko sénégalais yi wóolu ba jiital ko fal ko fal bu rafet boo xam ne amul benn natable ñëpp nangul ko ko ñu koy ñaanal yàlla na mission bi sedd ci moom yàlla na yéen bi sedd nu génn ceeg ay ndam yu rëy parce que bu ci amee ndam ñun ñëpp Sénégal ñoo ci amee ndam Sénégal moo ciy jëmee kanam déglu nañ ko nag parce que bërke démb la jot ci pouvoir yi ci lañ ko jox caabi Sénégal démb mu def discours officiel am à la nation mooy discours bu mu jàkkaarloo ak sénégalais yi pour sargal leen d'abord ci feeti indépendance bi mais mu mu mu waxaale ci encore yenn naal yu mu am ak yenn jëmwaay yoo xam ne gis na ne gouvernance am foofu la war jëm muy discours bu yaatu nag parce que discours bi rek wane na yéena bi parce que discours bi yaatu na laal na question yu bari yoo xam ne mhm. intéressé na sénégalais yi te bokk na ci li tax ñu fal ko ñu dégg ci nag ne lim bëgg a wax sénégalais yi mooy dégg nañ wax bi comprendre nañ ko namm nañ li namm nañ lii te nañ ci gaaw bu ci njëkk bokk na ci li ñuy waxtaanee réforme ci système électoral remplacer li nga xam ni itam moo jëm ci Sénat indi fi seeni alors yow da nga jàpp ni idée bu am solo la wala waruñu woon changer li nga xam ni moo di Sénat wala lan nga ci jàpp yow. waa xam nga démocratie élection def ci am solo dafa nekk ci xol bi parce que moom mooy wone Sénégal yi li ñu bëgg wala peuple bu mën di nekk bu tënku ci démocratie d'ailleurs loolu moo tax moom situation bi mu nekkoon ñaar fukki fan ci gannaaw ute lool ak bi mu nekk tey parce que sénégalais yi ñoo namm ne moom lañ bëgg mu jiite réew mi ci fukk ak juróom-ñeent yi yëkkati woon seen loxo ne dañoo bëgg kon élection ni ñuy niñ koy organiser dafa am solo moom nag mu annoncé démb mu ne dana changé Sénat bi yóbbu ko mu nekk seni côté bu foofu man dama ci waroo ak moom gis-gis. ah lu tax. li tax ma waroo ak moom gis-gis mooy sena dafay contrôler système bi ñu yor fi mu ne nii Sénat mooy contrôler administration Sénégal mooy organiser élection yi seeni réew yi mu am. administration à part lay nekk boo xam ne moo tax indépendante bi nekk ci moom mooy organiser élection ma jàpp ne deux mille am nañ fi alternance bu amul coow am ko 2012 am ko 2024 ñetti élection yooyu yëpp amul coow présidentiel li ñu bokk mooy dañ fa nommé woon ay ministre yoo xam ñoo géré woon élection yi te ministre yi bokkuñu woon ci benn faruñu woon fenn ñu organiser élection yu leer yoo xam ne bariwul wax kon jàngat bi mooy bu ñu amee ministre bu farut fenn boo xam mooy gérer élection yi mu sukkandiku ci administration bi ñu am ni war nañoo mën a am élection bu leer parce que exemple yi bari na fi xëy na am na ay rëq-rëq mais rëq-rëq ya bariwul. mais ak li fi jot a xew yëpp ci Sénégal indi DGE jàppal coowal Sénat est-ce que tamit euh, waruñu réformer. waaw li xew li xew ci ci bu mujj bii nii mooy parenthèse bi am ci coow li amoon ci DGE loolu li ko andi exception la d'abord mais man dama koy expliquer ministre de l'intérieur boo xam ne dafa far di jotee ay ndogal ci président ndogal politique di ko appliquer e, exception boobu munuñ cee basé wu pour ne système bi yëpp nañ ko tëggaat ñaareel bi sama ñaareeli argument mooy réew yi ñuy wax démocrate yëpp démocratie yëpp ci àdduna bi boo ci dem administration yi mooy organiser élection yi te élection yu leer la ñuy am du am contestation kon ñun bu ñu demee ci seen itam yàgg-yàgg dinañ dellusiwaat ci administration kon lan moo tax ñun waruñoo mën a renforcer suñu administration defar rëq-rëq yi pour jëm ci réew yooyu positif fi ñu toll fi ñu nekk parce que pour man loolu rek mooy avenir bu viable mooy avenir bu viable euh, wax na itam rationalisation parti politique ak ci li nga xam ni itam moo jëm ci seen euh, financement euh, pertinance bi yow lan nga ci jàpp waaw foofu dañ ciy d'accord ak moom dañ ciy d'accord ak moom parce que parti politique niñ koy doxalee Sénégal fi ñu toll nii dafa jar ñu xoolaat ko parce que loolu taxuloon parti politique jóg parti bu buñ la ko joxee dafa am ay mission yoo xam ne ñoom la àndal ñoom ñoo ci tënku te ni ñu gisee ñuy utiliser parti politique fi mu ne Sénégal dafa mel ni ñi ñu bari ñu koy def dañ koy def rek pour mën koo gàddu mën a waxaale ak moom bi mën a dugg fenn te ni ñu baree nii nga xam daanaka kenn ci ñoom sax nangootul dem élection ay coalition rek la ñuy créer làqu ci gannaaw di dem élection. ah ci jamono coalition lañ nekk nag Senghane. justement loolu sax jar na xoolaat jusqu'où la coalition yi war bi agir parce que boo réglewul question yooyu doo mën a régle question financement parti politique yi même régler question chef de l'opposition bi dafay xaw a causer problème kon réforme yi mu annoncé noonu d'accord nañ ci beneen itam bi nga xam ni jukki na ko jàpp nga ni itam bu am solo la répression pénale ak li nga xam ni itam moo jëm ci xeexub euh, fraude fiscale li nga xam ni itam moo jëm ci publication rapport yi audité wala lëñbët li nga xam ni itam moo jëm ci secteur minier bi ak meññeef yi nga xam ni daanaka euh, Sénégal ci euh, loxo yooyu la nar a tàbbi. waaw aspect yooyu fànn yooyu nga nga tudd. man jàpp naa ne bokk na ci fànn yi tax sénégalais yi fal leen ñoom parce que dañoo jaay sénégalais yi njub jaay leen ne Sénégal mën nañ ko gérer ci gestion bu mucc ay bu leer nañ ne boo xam ne du ànd ak caaxaan du ànd ak wuruj ak détournement sénégalais yi fekk leen ci parce que loolu it buñ waxee rek dëgg def ñu xaw a sonal kon nangu nañ ne côté boobu il faut ñu jël ci ay mesures il faut que mu andi ci ay réforme il faut ko mu am ci texte yoo xam ak pratique yoo xam ne il faut ko ñu laalaat loolu moom dañ ko ci encourager bu baax di ñaan réforme yi mu gaaw ndax ñu mën a sentir effet yi parce que réforme yooyu hmm. ci mbiram gouvernance mais Senghane loolu du yomb de du yomb mais man damay faral di wax ne gis nga nguur lu mu bëgg am ko hmm. par waa yow mi jiitu nag dafay am noo xam ne noonu ngay mën a mel pour mën a teg nit ñi fenn defloo leen lenn li yombul ci benn réew mais réew yi dañ cee rawante ci résultat ni yenn réew yi def ba nekk ci kanam am ci résultat yu dëgër ñun buñ ko defee ñu am résultat yu dëgër mën na nekk liñ naan rapport yi da doon yéex dafa war di gaaw léegi waa parce que rapport yi très souvent sax li ko doon yéexal mooy ñi koy tëgg dañ koy tëgg ba pare xam nga mënoo ko publier te fekk demuloo jox ko président de la république mhm. léeg-léeg de rang bi ci rang bi lañ doon yàgg parce que da ngay xaar ba sonn pour ko nga mën a am audience joxe rapport bi mu të et bu boobaa ñoom dañuy teg rapport yi di xaar quelque fois sax mu andi rëq-rëq parce que da dem dem ba jéggi ñu ñu ñàkk def li leen loi bi sant parce que am na ci yoo xam ne loi bi def leen sant ni at mu jot di ngeen génnee rapport d'accord yooyu nag mm. moom yooyu ci président de la république la dépendre loolu bu ko neexee moom soit mu gaawal yëf yi ba mën leen recevoir mais bu ko neexee aussi mu xool nan lay def ba changer système transmission rapport boobu parce que rapport yi sénégalais yi lañ koy defal bokk na ci ci li nga xam ni moo jëm ci digitalisation euh, léeg-léeg da nga doon dem ut kayit def vingt quatre heures euh, pour nga am ko problème la alors buñ ci boole ak xarale yi tey jàpp nga ni mooy li gën. loolu mooy li gën parce que àdduna fa la toll te mooy avenir yi àdduna parce que Sénégal dañ doon ut kayit benn kayit mën nga cee xëy mbaa nga yend ci bengoon léegi léeg sax doo ko jot mu jëlal la ñaar ñetti fan dañ doon gis fonctionnaire boo xam pour régler benn kayit def koy jaral mu tëj classe wala mu tëj liggéeyukaayam jóge ci biir Sénégal dëkk yi ci biir Sénégal ñëw dakaar pour fi loolu te mu nekk loo xam ne léeg-léeg benn clic mooy nga taal sa ordinateur connecté wu internet cliquer mën na ko régler deuxièmement dafay yombal surveillance bi parce que li tax mooy kilifa gi dena liggéey ci bonam yëpp muy suivre dossier yi ñuy traité ndax dossier yi gaaw nañ ban temps lañ jël te du am laaj yu bari te loolu administration bu ko am da ngay gagné ci efficacité gagné ci efficience mooy di nga mën a def xaalis bu néew am résultat yu mag te résultat yu gaaw aussi kon loolu am na solo Senghane Senghor ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ñu nga nangoo tontu suñu laaj. merci Memba maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant. di fàttali ni yow yaay coordonnateur observatoire rado fii ci diwaanu Ndakaaru. merci beaucoup. Ndakaaru. merci beaucoup.